ay la ilaha illallah salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam te ne yéen a safoo Hann TV amaat nañu mbégte ak contentement bu rëy rek daal di ñëw rek fi nga xam te ne moo di ah, ci jumaa ji ñu fas yéene rek ah, daal di xool ambiance bi nga xam te ne moom moo am fii si jumaa ji ñu xool ni ñi ah, naka la ñuy préparé pour ñibbi seen i kër ndax màggal gi mën naa ne jeex na démb la woon tey di lendemain de la màggal damay def lu dul rek ànd ak sama caméraman bu ko defee ñu daal di doxantu nànk ma xool gars yi naka la ñuy ak tamit seen i sëriñ naka rek lay demee salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu lay ziar bu baax. waaw ah, delloo nañ ziar. tur bi naka la. Modou Cissé. dafa mel ni yaa ngi préparé pour ñibbi de. waaw gis nga. ak ni nga solo nii. waaw noonu la demee. loolu mooy wane magal gi jeex na de. waaw magal gi moom instant bi moom jeexam si ñun quoi. parce que ba mu desee ñaari suur lañ ñëw pour ñëw wuy sëñ Bamba. parce que dafa liggéeyal yàlla liggéeyal boo xamante vraiment euh, moo ñu ñëw di magal ci. parce que màggal la woote léegi nag ñu bàyyi lépp liggéey wuyu parce que ñun yàllaa ñu ñor te moom si yàlla la ñu jëmee moo tax ñu topp ko daal kontaan nañu vraiment ñibi daal instant bi lañ taxaw kontaan nañ trop daal vraiment. waaw yéen ngay sëri ca. Ah bi moom ay bay ay photo bay Abdou Karim photo sëñ Touba bu ñu demee joxe ko sëri ci waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. salaamaaleykum sëñ. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ñu ngi lay delloo ziar bu wér. toog dafa mel da ngay waaj a préparé pour ñibbi. waaw instant bi de oto la ñuy xaar nii pour ñibbi Dakar. waaw mais dafa mel ni oto dafa xaw a manqué nag waaw. jënd nga sëriñ ca pare. waaw jënd naa sëriñ ca. lan jënd. Euh, maa ngi jënd ay photo sëriñ Touba ay photo sëñ Sidi Maxtaar ay Baab bi Karim yooyu noonu pour yóbbaale ko ñi nga xam ne njamuñ noonu daal waaye yenn yi tamit dama koy taf sama néeg ngir barkeloo ci suma xëyee di jàkkaarloo ak ñoom daal mhm. waaw loolu daal laa def sëriñ ca man. acca lan ngay wax rek euh, sa moromu jeunesse jeunesse bi lan nga leen di wax par rapport ak màggalu 2019 bi ren. Ah, waaw li ma leen di wax daal mooy mbirum Serigne Touba bi ku ci nekk doo def affaire caaxaan ñëw Touba nag di sellal ñibbiwaat nekk ci leneen moom Serigne Touba diglewul loolu moom daal bu nekkee dañuy sellal nañ sellal fii te buñ fuñ mën a demit nañ fa sellal ndax sëñ bi moom bëggul ay caaxaan te wallaahi gis nañ Touba loo xamante ne nii yéeme na de sëñ bi liggéeyal na yàlla wallaahi ku ñëw Touba di nga xam ne sëriñ bi liggéeyal na yàlla wallaahi loolu daal laa am lu may wax sëriñ euh, senes bi nañ góor góorgóorlu bu baax a baax te xam ne mbir mi àndul ak i caaxaan waaw loolu daal laa leen di yóbbante ñoom ñëpp oui. waaye maa xam nga ne sa naat bi dugg si jumaa ji xam nga lool. ah dugg si jumaa du dugg si jumaa ji. waye tim ragaluma dugg ak mom si jumaa ji ndax watuwuma lu waral may ñak seen mi sama mbaxana mi di dugg si jumaa ji très bien voilà lool moo tax daal baax na foofu ma doxantou nank xol euh, seen bi ñewal seen bi ñewal salam alaykum wa alaykum salam lay ziar bu baax do li ziar ay gam jam sante gal sur bi nakala mohammed Mohamed dafa mel nga préparer pour ñibi ni de wa gis nga si laa nekk de waaw ah, jënd nga sëriñ ba pare lepp man lo jënd non ibi xalé rek xam nga ah, xalé rek ngay jëndal daal wa gis nga waaye ni nga ni nga solo nii li may wan ne ne gi jeex na de. waaw jeex na jeexul nag. mais oubien man daal dafa mel ni man pare naa daal. mais gaa ngi si nag gaa ngi si wala. ana ana lan ngay wax euh, jeunesse bi nga xam te ne ne euh, jamono jii nii euh, mën nañu màggal gi jeex na waaye terew ñu ngi préparé pour déwén incha allah. waaw di yokk góorgóorlu yi rek comme samay mbokk Baye Fall yi xam nga yokk góorgóorlu rek mbu murit moom ndigal rek ndigal ndax lii boo gisee da nga xam ne ndigal la. Eh, rawatina Masaalikul jinan bu ñu jógee am nga lu fa am ñëwaat fi même chose dañu sante yalla yu baxit dañu sante yalla mi nga xamne moy jox xewal gi bañu mëna mën ko dagar di mëna a ñëw fii di sante borom bëre biit bu baax ak képp ko nga xamne mu ci si bërëb bi di leen jaajëfal bu baax inshallah incha kontan na ci mom bu baax baax ak ci borom vaar bu naa ma ma. señ bi tour bi naka la. mohammed Abdoulaye Fall. da nga ñëwoon Magal ci wa ñun sët Mame Cheikh Fall la nga dëkk Touba. non Touba ak Dakar. Touba ak Dakar. wa ci fas ñibi mhm waaw non dañoo fi ñu fi nak ba gani jeex parce que ardien mbali ñun Baye Fall ñoko ko dañuy balé mbali bam set parce que set beeg mbali yeek yëpp lañ bëgg dindi en tant que surtout mam Serigne Fall danoo war du gor góorgóorlu si mbalit ak ñi fi dëkk sax danoo war di nekk ci mbali bi xantuma ak gani yéeg yëpp parce que sëñ Touba ñu mu defal kenn mësuñu koo defal 7 tonnes 500 jaayante ak digënté ak mom ak tubab bi ñun nak dañ ko liñ ko mëna fay rek moy li gor gor lu joxe lek may ay joxe ay ay xasida barkelu ci jumaaji ñaanal suñu waaj ak ñi faatu ak def ci banex ndax lepp lo ci def rek sëñ la koy fay waaw ci bëggul ñu xam euh, lan rek ngay wax jeunesse bi nga xam ci ne euh, gannaaw ba ngam xalif bi limu li nga xam ci ne mom la ARN gi muy goor muy jigen ci li nga xam ci ne dañ koy jox lo xam te ne diina rafet lu ko lan la nga leen wax pour ëlëk déwén inshallah allah bu ñu préparer magal bu ñu ñibbis bu ñu ñëwaat parce que xalif bi mom li ñu def xalif bi mom li ñu wax ñun dañ ko waron def avant parce que gis na baye bàyyi baye bàyyi mo gën lepp parce que suñ jàmm rek lañ góor ñi dabalaa yi ni def naay sul wàcc tubay te suñ sony bu nee na gis na képp koy wàcc tubay na wàcc lan mooy yoom jeunesse bi dana war a gën a respecte seen waajur gis na képp ku bëggul say waajur doo mën a jariñu ndax sa xalif bi mooy sëñ Touba rek sëñ Touba mooy xalif bi ndax soo ko xoolee lii mu def nii sëñ Touba moo ni woon fil Dakar dinaa ñëwaat tudd Muntaxa moom mu ñëwaat nekk xalifa jeunesse bi dañ see war a gis seen bopp bàyyi lépp bàyyi lépp joxe fi bàyyi lépp amul tax bàyyi parce que kool dafa jeeg gis nga am na weñ boo xam ne su ne toq sa ween yow muy jigéen dootoo jurati wàllu xale bi ay wàlluwu la ñu bëgg a wële parce que lu gën a neex mooy na muuru ba jekk seetlu ba jekk parce que nit dañ koy respecté ñii fi tëdd ay wàlluwu lañ ak ku mu mënti dañ ko war a góor ñi tamit bis nekk tey ñuy sol tuba yi lu tax ko takk ba mu dëgër di góor góor te yaakaar Sëriñ Tuubaa yaakaar gaa yu baax waxatuma la ak Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa li mu def amul keneen ku ko def loolu dafa far nan góorgóorlu respecté suñu waat parce que ñu xalé yii nii ñooy avenir ëllëg gis na képp ñun sëñ Saalum mi ñu yar dañu daan wax dee leen góorgóorlu tey na respecté seen i parce que nak xalif lu def ñun ñëpp dañ koy rafetlu man dama daan sol jiin waye xalif bi mu waxee ba tay depuis bobu si laa bàyyi sol jiin waaw ah. kenen non kenen non mm. parce que yow amul sens mm-hmm. gis na nit ki lepp lu muy def rek su ci gisee boppam rek da fay lu baax waaye sëñ bi bëgg nañ xam euh, ndax nga gise màggalu 2019 màggal gi dafa ala doome dafa gën a yokk sax sëñ Tuubaa moo dul kenn xool ko Masaalikal Jinaan bi neen jóge ak li na gis nii parce que sëñ Tuubaa nee na bis bu nekk gàcceel na sama bis beneen man nee naa ko gisul du gàcce sax ndax sëñ Tuubaa nee nii ñu koy màggale nii noonu leen koy màggale màggale àjjana fil daws kontaan nga yi man su ma deewee sax dugg àjjana parce que ñun Baay Faal su dee sëñ Tuubaa nañu rey parce que sëñ Tuubaa dañoo deselatul daara parce que nag xoole dafa bind ñu gis jëf ñu gis soo ko xoolee si xabaru maam Cheikh Fall bi dañu woon sëñ Tuubaa dafa ñaanoon moom sëñ Tuubaa dafa ñaanu sëñ Tuubaa ni ko su ma naree am ay doom di la ko tudde ngir ñu lay tontu wala ñu lay diñat yàlla nañ faatu moo tax sëñ Tuubaa soo ko xoolee si tarixi maam Cheikh Fall mosu ko tudde doom waaye ay doomam la ko tudde soxna si daal da nga naan màggal 2019 validé daal. comme ça màggal 2019 sëñ bi validé na ko sa si ah. waaw. instant yu bëggee rek waaw. kon baax na naa ma xaaral ma dem xooli ah, benn maire comme ça bu ko defee ñu daal di ah, waxtaan ak moom rek ah, tuuti est-ce du ma jël maman bii nii du ma jël maman bi salaamaaleykum maman. maaleykum salaam. yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi am la. Mame Diarra Cissé. maman Mame Diarra Cissé Touba nga dëkk. waaw man croisement Ngoundiane laa dëkk. nga jóge ñëw màggal si. waaw incha allah. gise nga gisee màggal gi. neex na torop. waaw man conseil ngay jox jeunesse bi pour pour déwén incha allah bu ñuy ñëw ñu préparer parce que déjà ren euh, ki nga xam te ne rek moo di xalif li nga xam te ne tere na ko muy jigéen ñi ak góor ñi. waaw xanaa ci ren moom nit ñi kontaan nañu sol jot na muuraay yi jekk na gisuñu fi mees gisuñu fi pause dañoo bëgg su déwénee lu raw lu amoon daaw mu raw lu aw lu am ren ndax diine ji fi mu toll dañ koo war a gën a suqali ndax sëñ Tuubaa diine moo ko tax mu am lii mu am tey ko dañoo war a suñu sëriñ bi sooba yaa magal de Touba ñi gëna santat rek sëriñ Bamba bu baaxa baax ma ngi ci biir jumaa ji bu ko defee rek mo waxtaan ak soxna si xol mom euh, naka la dundé magal gi salam salaamaaleykum soxna si waaleykum salam may lay ziar soxna si de delo ziar baax tour bi naka la wa Fatou bop la fan nga dëkk wa man ma ngi dëkk parcel unité 4 parcel nga joggé ñoo magal si wa fo ma parcel la joggé ñoo magal si ñu la fekk ci biir jumaa gi da nga ziar paré wala da nga ñëw pour ziar wa dama ñëw pour ziar ziar sama sëriñ ziar ñëpp macha allah tey ñaanal yàlla ñëpp incha allah yàlla nangu ñaan yi ñang nangu ziar nangu lépp daal sant yàlla waaw. rang bi méttiwul woon comme ni daan faral di amee rek. waaw rang bi moom mbiru sëñ bambala la du yomb du yomb te lu yomb indiwuñu fi rang yi chaque année saa yoo ñëwee màggal nga xam ne li ñëw ren lu ëpp ñëwaat na kon du yomb pour rang bi di yomb daal. lépp ci coono la dañ ñëw ti santale baam Bamba borom bi subhanahu wa taala kon lu yomb indi wuñu fi mhm. boo jógee fii da ngay takk say bagage ñibbi parcelle waaw incha allah ñu am yéene da nga jënd sëricë ba pare waa gis nga après su ma fexee nag su ma génnee nii damay jënd ca yóbbaale incha allah waaw bu fa seenee jënd waa xam nga rek ñun jigéen ñi foog ñu jënd yooyu. ay kii daal ay kii <laughs> xam nga rek jëndal xale ay jara jënd yooyu ñun tam ñu am yu yuñ jëndaale yooyu xam nga bokk ci saag beeg yooyu. aji lan ngay wax xale yu jigéen yi nga xam te ne ren mën mën nañ ne lu ci bëri dañ ko bàyyi parce que xalif bi daf koo digle. Mhm. waaw waaw dañuy dañuy sant yàlla parce que démb rek maa ngi koy wax ci dal bi ma ne gis ngeen tey ni ñu amee temps ci liggéey bi te dañ ñu lislaam d'abord daf ñu noppal. ba pare sëñ bi tey mu noppal jigéen ñi waaw comme ñun duñu wéy lu dul ndigal ren jigéen ñi boo xoolee ne xef yi nga xool greffage nga xool yeneen ak yeneen ongle yi ak yooyu sant yàlla waañ di doo ko gis waaw mën nga wax xëy na nga gis ay xef ak yooyu mais à part le greffage doo ko gis fant jupe fant yi wala yenn yére wax dëgg yàlla pour man ci li ma gis wéyee nañ ndigal te yal na sax nag yal na sax dafa neex lislaam ñun jigéen daf ñu ormal sëñ bi ñëw ne nañ nañ wéyee ndigal te murit ndigal macha allah sant yàlla alhamdulilah di wax jërëjëf sëriñ Touba macha allah. aj soxna si ma koy jaajëfal lu baax a baax macha allah point yi mu fi souligné am na solo teyit euh, am na yaram am na teggin macha allah damay def lu dul rek doxantu ndànk euh, jéem a euh, dajeek ak ki nga xam ne moo di Ahmadou Bamba moom tamit sama collègue la moom tamit ñu nekkoon na bee boor man tam ma nekk bii boor bu ko defee rek ñu daal daje man ak moom ñu ñu ñu xool naka la ñuy naka la ñuy kiiwee màggal 2019 bi waaye dafa dafa mel ni gis naa ko de asalaamaaleykum. maaleykum salaam Dieynaba maa ngi lay ziar. loolu naa la ziar bu baax. naka mu naka coono màggal gi. jam. yàlla bu baax. mbaa am nga jàmm. sant yàlla alhamdulilah ah daje nañ dajewaat nañ fii si jumaa ji de. dajewaat nañu. Ah. waaw naka liggéey bi. suba maa ngi nii rek gis nga de suba ba ñu ngi si eh, terrain bi yow aussi tamit yaa ngi nekkoon beneen man tamit maa ngi di def comme na fa war rek comme niñ koy faral defé rek chaque euh, magal waaw comme niñ ko waxé yaay won ci wette ge ñing ci wette ge ngir lepp ngir internet yi bekk ci magal édition 2019 bi ane ci ak si muntaha basirou diko ñaanal togaay bi yag ñu and ak mom diko magal ay at yu bëri dërëjee Cheikhul Khadim waaw ak yow sa bor naka la démé won nak nga gisé magal gi waaw magal gi en général dal tawfeex la yalla dimbalé na ñu fekk ko daw fekk ko ren sante yalla bu baaxa baaxa baaxa baax a ren nag ñu and ak équipe antv bi yépp tambaliko ci si bëss bi nga xamantene moy feulé di kër sin soin bu Mbacké Madiana and si yoon ci ak sin Moutala Mbacké ngir waxtaan si lepp lu um ci magal gi buñ fa joggé nak dem nañ daaree kaamir waxtaan si bërëb bu sel bo nga xamné si Abdoulaye moko def si yoonu Mourid to mu am symbolique bu reuy si yoonu murit buñ fa joggé tamit dem nañ seet sin ummi sin dem nañ kër sin Abdou Karim Mbacké jël fa direct sin Abdou Karim buñ fa joggé ci guddi gi dem nañ kër Cheikh Oumi Mbacké mo Cheikh Mamadou Fadal waxtaan ak mom digënté magal ak Cheikh Mamadou Fadal ndax buñ amé tawfex gi ñoo julit yépp dajé diko diko magalé fi ci fii bu Touba Yalla ak Cheikh Mamadou Fadal moo tax ndax moko woré Touba Touba ñëpp di ko fi màggalee waaw loolu daal moo nekkoon tënk gi ban fa jógee tamit waxtaan nañ ak ñi nga xamante ne ñooy jaay si alxuraan ak xasida yeeg yooyu noonu ak kurus gi loolu daal moo nekkoon tënkum màggal gi foofu wet googu lañ nekk woon yéen ñu waxal bàyyi la nga wax eh, internet yi ban wet ngeen nekk woon rek waaw man nag maa ngi nekkoon rek ah, ci boor ya ah, këriñ kër ah, sëñ Abdou Aziz Laxaat Baara Mbacke foofu la ñu tàmbalee ganaaw ba ñu jógee ci moom tamit demoon nañu foofu la ca Ndindi seeti ki nga xam te ne rek moo di waa kër Cheikh Abdou Karim Mbacke bu yaraax waxtaan ak ñoom ci li nga xam te ne moo di wàccaayu màggal bi jour bi ak avant ak yëpp gannaaw ba ñu paree nag dañoo ñëwoon fii ci biir marché bi bu ko defee rek ñu xool ambiance bi nga xam ne moo fi am mu mel ni rek eh, yëf yi eh, neex na ba noppi ah Ahmadou Bamba dama lay bàyyi rek nga daal di joxe ñaan kon da yaay yow yaay borom gi. waaw ñu tàggoo ñëpp tàggoo internet Hann TV di gërëm ni ñi nga xamante ne nii ñoo ñu toppoon programme bi yëpp Hann TV ñu amoon yitte diggante leen lu ëpp lii parce que màggal gi yéen gi ëppoon na lii waaye sant yàlla rek sant yàlla ndax yeneen màggal mu ngi suñu kanam yeneen yeneen yeneen bésu jullit mu si kanam di ko fas yéene joxaat rendez si gàmmu gi rek ak yeneen édition diine yi xew ak li programme bi actualité lépp si Hann TV dina xew lépp lu internet yi yittewoo rek incha rabbi dina fi am di ñaan yàlla yàlla ay déwén yu bëri comme dugg nañ si bisimilah rahma génn di gërëm ñi si jàppoon yëpp di gërëm techniciens yi nga xamante ne nii mi nga xam moom lañ àndal bi ak mooy directeur bi di Aliou Sow mi nga tey ñooñu dalal ak di gërëm ñi nga xam ne ku lim ku lim da nga da nga du juum waaye doo motal ñu ngi gërëm ñi jàppoon si liggéey di leen ñaanal ñu fekk yu bare bare bare di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassirou yàlla yàggal ko taxawaayam bu wér a wér ba naar yim sumb yëpp si yoonu diine rawatina si yoonu Sëriñ Tuubaa gi yàlla dimbale ko ba mu yeggale ko si kattanam ak mën-mënam doolee macha allah mu mel rek wax na lépp ah sama collègue bi daal kaal macha allah moom mooy borom màggal gi ah <laughs> kon ni koy waxee rek ah, bokkente na si ah, duñu lu def lu dul rek daal leen di jox rek ah, dig daje ba très prochainement incha allah waaye rawatina li nga xam si ne moo di mawlud bi ñu jëm muy mawlud 2019 dinañ dugg kër laayeen yi tijaan yi xaadar yeeg ñëpp ngi si biir gàmm moom ñëpp ko moom ayca leen jox dig daje rek très prochainement incha allah ci mawlud bi ciao ciao.